ñu tànk tànk jàmm rek la mooy dañoo jot ndigal ci suñu kilifa mooy madame le ministre du commerce et des petites et moyennes euh, pour ñu ñëw xool li nga xam ne moom moo fi nekk ci mbirum approvisionnement marché Touba. loolu nag ndigal boobu mu ngi sokkeekoo ci réunion bi nga xam ne moom la ñuy def altine bi passé xam ne dañoo woo waa commerçant yi nekk Touba ñu ñëw à Dakar ak yeneen ñi nga xam ne ñooy commerçant yi importé ak ñi euh, defar euh, produit ci biir Sénégal. ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa problème ak li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni loolu la ñu war a def pour que mu dox. ci ngir mbir loolu nag bu mu paree la soxna si madame la ministre joxe ndigal léegi direction du commerce intérieur ak service régional du commerce de Diourbel ak suba bu nekk dañoo war a def lu ñuy wax relevé de stock. mais aussi dañoo war xool tamit li nga xam ne moom mooy besoin commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba pour que bu fekkente ni am nañu ay commande te yi xam nañu fu mu nekk xam kooku ñu commandé lu mu nan la ci taxawee. moo tax léegi service régional chaque matin day def relevé de stock xam commercant Touba bi lu mu soxla ci ceeb si diwlin ak ci suukar mu wax ko directeur am directeur bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo mooy fournisseur ba. fournisseur bi nag moom tamit mu xam ni def war a toppatoo loolu te bu ñu defee système boobu bu ñu ko waxtaanee altine ba ba léegi ñun dem ñëw nañ tey pour xool ndax mu ngi dox te ci wax ci kaddu commercant yi nga xam ne ñoom la ñuy seet. gis nañu ni système bi mu ngi dox ndaxte ñoom ñi xam gis wane nañu ni que balaa réunion bi am na produit yu bëri seen commande yoo xam ne ñu ngi tagoon dakaar ñëwul. waaye bi ñu defee réunion bi ba léegi yàlla def na ni seen commande yu bëri ñëw na muy si suukar bi muy si diwlin bi muy si ceeb bi donc loolu vraiment loolu la ñu mënoon ñëwoon pour xool saytu ko si tour madame ministre ndax mu ngi dox wala doxul. njëgi tamit dina jàppandi ndaxte li mu nekkoon. tey nguur gi am na lu mu ci def ci ay saafara saafara yi mooy nan mooy jël nañ benn arrêté bu bees pour fixer njëg yooyu bu ñu ko defee dañoo ne région bu nekk gouverneur bi na jël moom tamit njëg yi nga xam ne mooy njëgu région am te Diourbel def nañu seen conseil régional de la consommation ba arrêté nañ seen njëg njëg yooyu léegi service régional ak service départemental yi ñoom ñoo ko war a saytu di ko faire respecter ci kaw loolu ñun tamit tooguñu ndaxte dañ leen renforcer ci liggéey jox leen ay jumtukaay ay oto ak ay yeneen élément pour ñu gën a taxaw ci loolu def naa ni directeur de commerce intérieur mu ngi fi taxaw lu mu ci déplacé ci ay élément def naa war na mu ay 15 agents en prise de sela dañoo yaakaar ni njëg bi boo gisee nguur gi def ko c'est pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo yi ñu mun ko jot kon nag waaye jëfandikoo yi bu nekk yow tamit da nga xam ne njëg yi yow lañ ko defal boo gisee nii loo xam ne jaaduwul ci njëg bi da nga war a service bi nga xam ne moom mooy service commerce bu nekk sa gox pour que mu ñëw mu mu taxaw ci mbir moom.